Eh, Kouthia. Kouthia. waaw ah, kay Mama Talla. mbaa déranger wu ma la. déedéet dama la mettre en main libre. dama toog ak ñaari taskatu xabaar ma ne leen ni journalistes yi amee solidarité de corps politiciens yi am solidarité de corps syndicalistes yi am solidarité de corps waa Jamra dañu am solidarité de corps ndax Kouthia membre la ci Jamra. effectivement. ñu ngi nii di ma dégg di la dégg. sànq dama leen wan sa sa photo. ma leen Kouthia dugg na Jamra. te ñun amuñu payam ndax bi Jakarta lëmbalee réew mi ma bindaleet président de la république yëf yi ne këcc rek ñi di ko jaay ci école yi cent franc xale yi di ko naan di mandi yow laa seetsi yaa ñu defal benn clip gratuitement dërëm laa jooñu ko nga lancé benn alerte Macky Sall daa di woo Aliou Sarr qui était à l'époque le ministre du commerce jox ko ndigal <clears throat> ne ko Jamra def na ay analyse de laboratoire ndekete euh, Jakarta bi ñuy jaay ci école yi dafa am alcool Aliou Sarr daal di def benn euh, arrêté ministériel date ba duma ko fàtte mukk en date du 18 septembre 2015 interdire sur l'étendue du territoire national lépp luy Jakarta salañ salañ ak namp bi mën na leen Kouthia moo liggéey loolu kon Kouthia bu nekkoon ca diggu jaxanama sax ñuy waaju ubbi buntu jaxanama di ko fa dugal sax jamra dana ñëw laxasu si tànkam ànd ak moom dugg sa jaxanama alors ma ne kon nag euh, amul euh, doomu aadama bu dul am nattu te Sénégal dafa am nu mu bindoo léeg-léeg da ngay wax ak koo wóolu koo wóolu xam nga doo ko nëbb sa dara say xalaat say crainte te ñun ñëpp kenn mu ci si man mii di wax ak yow léeg-léeg ma woo waa uh, imaam Massamba Diop imaam la de di am ku may jow daa waaw kii de xoolal ma li mu def démb rek ñëpp ñëpp a koy def waaye le problème mooy léeg-léeg da ngay wax ak sa homme de confiance wala une femme de confiance mu enregistré la et c'est lâche alors ma ne leen natt boobu moo dal Kouthia même bu fekkee kaddu yi Kouthia yëkkati am ñu mu ci tudd même bu ko Jamra rafetluwul sax parce que ñooñu dañuy am njaboot nekk ay mère de famille et cetera même bu ñu ko rafetul sax ki gën a bon taxawaay ci mbir mi mooy ki ko enregistré def na lu lâche te ku Kouthia maa ngi lay yëgal ne bu la neexee soo amee jot semaine prochaine ñu jël contact dinañ ko poursuivre au plan pénal parce que la loi protège le droit du citoyen d'avoir le droit à la préservation de données personnelles loolu la war waral ñu créer CDP te soxna Awa Ndiaye jiite ko la la loi protège également koo xam ne da nga wax ak moom mu di la enregistrer sans sans ton autorisation loo tax état di créé la DSI la division spéciale de la cybercriminalité yow xam naa da nga bëri yërmande rek waaye bu la neexee semaine prochaine ñu poursuivre ko ma woo maître Moussa Sarr parce que daf la enregistré te yëgu ko voilà di la masalu nag. di masalu tamit ñi nga xam ne tudd nañu leen ci sa euh, wax ak euh, soxna si euh, ñoom it Amina Poté di masalu Viviane ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ku nekk ci ñun mato da ngay tarxiis di juum waaye ndaw si loolu mu la def def na lu ñaaw waaw kooku la senegal yëpp war a xalab yow nag ku baax nga ku jub nga ku bëgg nit nga te fii ba ba ñuy sàngoo suuf lii nga liggéeyal Jamra ba président Macky Sall ànd seeg yow daal di supprimer Jakarta ci école yi sa liggéey la père de famille yu bari yu seen doom mucc si Jakarta yàlla ak sa taxawaay la moo tax presse baa ngi nii di ma déglu dama leen wanoon sa photo ñuy nuyoonte maak yow ma ne le 13 février Jamra dafa officialiser adhésion Kouthia ci Jamra waaye Kouthia ba mu duggee Jamra c'était le 18 septembre 2015 ba ñu yàlla mayee dam ci Jakarta Kouthia du noonu sànnil quelque baat gaa yi ngi lay déglu ba xëy mu fi. bisimilah. maa ngi leen di remercier ñëpp. waaw dina wax ak la. waaw. ak euh, jigéen moom ko day pexeel rek. dëgg la. waaw yàlla baax na parce que tamit euh, nit ki moo ko takkee ci faratu sunu Muhammad. dëgg la. da ko da ko takk rek xamoon ne moom amul boobu nekkul woon sincère. Mm-hmm. parce que bu sincère woon du jël euh, léegi bi ngeen commencé waxtaan da nga koy. bu la ngeen di sëy. dëgg la mu ngi lay mu ngi mhm. la. parce que dafa am tamit chantage euh, xaalis bi ci mhm. waaw ba yooyu yëpp mën nga see bañ a dugg bàyyil ba ñu toog ma yow. waaw loolu laa bëgg daal d'une manière générale. voilà. ok loolu la mhm. tey tey la la gën a fonk nag incha allah. bon exemple. Mm. communication. ndax mm. euh, boo xoolee suñu ligne éditoriale émission. oui. amul benn clip bu ci jaar boo xam ne dafa am ay vestimentaires euh, yu décent yu ci am. dëgg la. du dul euh, chanson envers le prophète Mohamed. Mm, boo tàppee boo tàppee émission ci à deux mille douze ba deux mille vingt trois. waaw amul benn clip ci jaar boo xam ne waaye mu fa leen lu yonent bi. dëgg la. balaa ñu commencé les hommes religieux yi njëkk ñuy prend quinze minutes d'émission émission de cinquante deux minutes la. c'est ça. donc euh, euh, je pense que ci ligne éditoriale boobu mooy fexe rek ba xale yi. benn ñu xam kilifa diine nekk ci réew mi. Mm-hmm. fekkee da ngay dafa intéressé balaa ngay commencé ci plan quinze minutes di tudd tous les marabouts du pays dans les recoins et coins Sénégal. exactement. avant ngay egg ci li tax ñoom luy toog bu yàggee dañuy xam ñëpp ba pare nag yow ñu xam ne message yi ngay def parce que quand l' actualité est chaude ñu dañ koy ñu ngi ko consommé nga xam ne du am benn danger. Euh, mooy éduquer. Hmm. enseigner et vraiment pour tamit. Euh, hmm. sensibiliser tamit di wàcce tension Sénégal. dëgg la. seen dara rayante ñu def euh, rayante boobu ñu def ko en scène comique nga xam ne. Hmm. après Sénégal dañuy banaliser loolu ba en fin de compte. tension bi day wàccee. dëgg la. loolu daal mooy suñu engagement ci biir Jamra ci côté média. incha allah donc membre nañu donc ñun loolu la ñu mën a def liggéey. loolu la quoi maa ngi rafetlu tamit sa sa pensée envers moi. dëgg mën nga rek ne ah li ma ci wax. waaw léegi ah, euh, sax dafa am sama benn jarbaat bu bi coow li jibee. waaw ne waa tonton waa affaire bi li ko ndaw si def ñaaw na de. waaw yow mbaa ah. mbaa ci mucc ndax yow da nga bëri wax <laughs> yaa ngi ci téléphone yi yaa ngi ci nangam ma ne ko jarbaat na sa xel dal mu ne ma ah tax. ma ne ko loolu dama ko réglé depuis longtemps mu ne ma ah noo ko réglé enregistrement kii lay enregistré du la tàggu de ma ne ko ah bàyyil ma wax la naka laa ko réglé mu ne ma noo ko réglé ma gis nga ni bu ma toogee wal fajiri 2S wala beneen télé wala TFM di mbel mbeli ma ne ko na may toogee nekk à l'aise en dehors de ces émissions bu ma nit wooyee téléphone su may wax ak moom maa ngi jàpp ne maa ngi toog télé di wax bu ko defee mentalement danaa xam sama wax nu mu ah. ko c'est la meilleure parade ma ne ko lu ma wax ak nit téléphone mën naa ah. taxaw ci diggu penc mi répété ko euh, léegi ku caa yow loolu laa lay dénk ndax yow danga ah. sa xol bi dara new ji yow da nga jàppee ñëpp comme sa bopp da nga ba pare da nga rafet njort bu mu wëpp léegi dama bëgg nga gànnaayoo lii ma wax suma jarbaat bi kooy waxalati télé wala euh, euh, téléphone jàppal ne yaa ngi toog ci diggu tele ba di wax ak waa Sénégal bu ko defee booy wax yàlla lay orienté ci loo war a biral ci sa kàddu ak loo war a ñàkk biral alors léegi nag euh, j'ai dit partout que suñu partenariat ak yow tey la gën a dëgër benn journaliste ne ma pourquoi ma ne ko pour deux raisons Kouthia moo tax ba Jamra am ndam ba Macky Sall jàppale ñu ci génn la l'arrêté ministériel septembre 18 septembre 2015 ñu interdire Jakarta bi doon mandiloo xale yi ci école yi ma ne ko deuxième raison bi tax Jamra tey la gën a jàpp Kouthia Kouthia dafa am une ligne éditoriale ci Kouthia Show bu niroog bu Jamra d'abord balaa émission am di commencer day nuyu xalifa diine yëpp loolu lu rafet la bu Touba ak Tivaouane ak Ndiassane ak Thiénaba ak Niassène ak Medina laa Layène ba ci église bi ñaareel ba mooy le contenu de l'émission doo gis mu Kouthia di futti jigéen wala Kouthia di ñàkk teggin di xotti war ma jigéen wala Kouthia di yëkkati ay kàddoom di def de la pornographie verbale ma ne ko nous avons la même ligne éditoriale voilà ma ne lii yàlla nañu gaaw a tourner la page gas ko suul waaw nga reprendre tes activités normales waaye y'a aucun problème nous sommes à tes côtés ñu ngi lay ñaanal euh, amul jullit bu dul am nattu waaye ndaw soosu def na lu ñaaw ba fi ñaaw yam voilà ndax yow yow xam nga gàttoo xel bu day ni dem en public di wax ay kàddu yu demee noonu kon da nga da nga waxtaan ak moom dans le cadre privé waaye moom moo nekkul ku digne de confiance voilà alors kon nag euh, euh, moi je suis confiant parce que je sais que tu as un mental d'acier te doo doo doo doo kii doo doo déprimer doo perdre doo perdre sa sa sa stabilité loolu rek moo tax suma xel dal waaye dama ne woon dama lay woo rek parce que y a tellement de journaux yi naan Kouthia Kouthia membre jam la de waaye lii mu def nag li mu des nag moo tax nag loo tax nag léegi comme que dañu wax ne Euh, li ci làmmiñu borom la daxee moo tax ñu ngi nii toog ma daal di ko bës bës main libre bi gis nga wax wax nga wax ju rafet te Kouthia ba woon démb la ñu gis nga ne la da ngay am question bu question yi bari nag laaj leen balaa ngeen ko fiy piégé waat benn question rek a ci waxal. Euh, Kouthia lan ngay répliquer ci sortie bu Amina Poté bi li mu wax yëpp dëgg la dangeen am jaar-jaar boobu wala dafa nekk loo xamante ni daf ko créer en mm-hmm. par benn. naa nee na seetaanu ko agent Ndiaye deuxième question. d'accord dañoo bëggoon xam ndax li waral li nga xamante ne moo di sa émission bi dawul foofu ci Groupe Futurs Médias. waaw nee na lu tax Kouthia Show jàllul tey. ak démb dem ay ziar dama nekk côté Fouta. ah da nga ah, waaw loolu am na solo loolu am na solo waa kon Kouthia. suñu question bu mujj dañu wax euh, mhm. kon léegi dañ lay bàyyi nga eggali sa ziar. waaye léegi booy ñëw Dakar rek na nga ma am nañu lu ñu waxtaan waxtaan bu yaatu bu ñu war a mag yow. incha allah du yaa ngeeg sama numéro. waaw kay yal na yàlla sàmm. waa kay jërëjëf.